Ousmane Sonko bi ngay wax sama bureau la doon toog sama bureau man maa ko wax sama bureau. 2016 dama ne non dañuy wax dañuy waxtaan rek. ñun ñëpp d'abord PSE plan importé la. plan importé la ah. ça ne vient pas wax yoo xam ne man sama kii bon boo ma ko bossee je reviens. sëñ bi plan Sénégal xam nañ ne dañ ko dañ ko. kenn importé ko de. mais c'est un plan kenn du ma ko jàngal. man j'étais ici conseiller technique. kan moo ko fii. Macky Sall ñu bari ñuy wax bañ ko falee may quitté Canada di ñëw. bu bi man ba ma ñëwee yoonu yokkute dañun ñoo ko dawal. très bien faut dire les choses telles yoo sont yoonu yokkute ñun ñoo ko doon dawal fii. ñu daw tuuti ñoom ñu toog xam ne lii du dem ñu andi te paie sax ñëwagul liñ andi SNDS lañ andi ñun ñoo ko liggéey. tous les CT conseillers techniques. Mhm. directeurs de cabinet ñoom ñoo et c'était le meilleur plan parce que au moins ça venait de tout le travail qui a été fait. développement du Sénégal boobu moo baaxoon. le PS n'est rien d'autre que la continuité. non je suis désolé j'étais là man kenn du ma ko jàngal. Euh, man pareil. non non continuer rek tu je connais. non non man maa maa maa maa maa maa maa maa maa peux arrêter j'ai aucun problème. Mhm. allez-y vas-y termine moom mu continué. donc plan Sénégal émergent il faut pas nous dire que ne c'est ça a été concocté ici ça n'a pas été concocté ici Macky Sall dafa dawal yoonu yokkuteem gis ne il n'avait pas confiance à ces gens yoonu yokkute bi demul mu teg SNDS ñuy dem SNDS ce sont les partenaires techniques et financiers FMI Banque mondiale ñoo njëkk a torpiller SNDS et c'est pour ça que ça ne demul alors que c'était le bon plan. Et là, on nous a, avec le cabinet McKinsey, c'est là qu'on nous a apporté PSE. Faut pas nous dire que ça vient de Je vais rétablir je vais rétablir la vérité. Non, c'est ça ah, la vérité. Oui, mais laissez-le rétablir la vérité. Ça, c'est votre point de vue. Oui, mais laissez-le la vérité. Conseil technique nga fan nga nekkoon technique ban ministère nga nekkoon. non kon xamoo ko woon. bëgg xam nga ne connais pas. voilà moi j'étais conseil technique de Amadou Ba ministre de l'économie des finances et du plan. PS yoonu yokkute programme campagne la programme campagne pour gagner élection. il n'était pas il n'était pas opérant d'ailleurs. voilà ah, donc voilà ah, très bien donc après Amadou Kane ñoo ministre des finances ils ont travaillé sur SNDS avec les bailleurs. ah tu fais que dire ce que j'ai dit. ma xaaral ma pare. ah may ko may ko Moussa. monsieur Fofana. je suis euh, désolé je vous ai respecté les gens quand même un peu de respect un peu d'élégance oh, un peu d'élégance monsieur donc donc vous me laissez terminer euh, s'il vous plaît donc euh, vous me laissez terminer s'il vous plaît. Moussa s'il vous plaît. s'il vous plaît vous me laissez terminer. on n'est pas sur un ring. voilà on est de est dans un débat intellectuel oui. débat d'idées calmons-nous. Euh, pas vous pas serein. vous n'êtes pas serein. nga tontu ko tamit. duñu nekk nekk Pierre. ku la nekk Pierre mais nii laa la def sànq ngay bëgg a sori. non non mais bu ci bëggee. Moussa ko mu terminer. léegi da ngeen jiite réew. réew doo ko jiite si yu mel nii. da ngay dal tuuti nga déglu nit ñi très bien bon. Euh, deux mille deux mille deux mille deux mille euh, c'est McKinsey bu mu defee plan Sénégal émergent. ñun ñëpp ñun ñëpp avait eh une levée de bouclier au niveau de l'administration du ministère des Finances on va pas payer un rapport bu ñu coûter deux milliards ñu ñu koy imposer ay boo yu jóge Paris ak waa diisoo ñëw di ñu koy imposer. Mimi Touré premier ministre moo njëkk ne lii baaxul King Fahd lu ñu def euh, premier ministre des Finances à l'époque Amadou Ba. mu jël plan bi woo fonctionnaire ministère des finances ak plan ak euh, Aliou Faye le directeur du CEPOD à l'époque mu ne toog le plan faites un mix entre la SCA stratégie de la croissance accélérée bu Ibrahima doon def mhm. la SNDS ak émergent patron McKinsey Dominique Barton qui est aujourd'hui l'ambassadeur du Canada en Chine si boppam jël avion privé ñëw fi ak Acha Leke qui le, le le partenaire africain qui le truc ñu ñëw ñeen leen 2 millions 2 millions de dollars ñuy fay baal nañ leen ko rapport bi comme ces gars yi disaient ils ont critiqué ils ont dit que euh, ay PowerPoint la 70 baaxul on a tout repris de A à Z fii lañ ko bind ay sénégalais bon teint foo Pierre Ndiaye ancien directeur général de la planification et des politiques économiques ak équipe ñoom Bamba Ndiaye Bamba Diop l'ancien directeur général de la du plan ak ñoom euh, booy bi nu mu tudd ko sax grand moom ak sax. Babacar Sène ñoom ñëpp ñoo bind rapport ak Babacar Beye indi ba ñu am rapport bu nga xamante ne moo nekk. plan Sénégal émergent tey moo am PAP 1 PAP 2 PAP 3 dernière version bi ñu ngi ko am ay sénégalais bon temps ñoo ko bind McKinsey bindu ko Dalberg bindu ko te je suis bien placé pour le parce que j'étais économiste à l'OCDE on nous a amené le rapport j'étais à l'OCDE pendant cinq ans à Paris ñu ne am na le rapport équipe ministère des finances yi par Ibrahima Wade ñu présenté ñu ko ñu leen ça c'est le meilleur rapport qui existe président jël rapport boobu dem groupe consultatif à Paris 2014 mu récolté plus de 2000 milliards ñu jël Mohamed Boun Abdallah Dionne boobu mu ngi uni di indi ko def ko premier donc boo nee euh, c'est un rapport qui a été écrit écrit par McKinsey je suis désolé vous ne savez pas là de là rapport naa la yónnee rapport boobu à période ñu ko booy yu ko doon gérer ñoom Babacar ñu ngi ñu ngi fii euh, fonds 6 comme directeur exécutif kon sëñ bi Euh, li nga xam ni tam xam nañ ko. mais Pape Sarr ah. je je je c'est votre version. léegi man je je pas ah, polémiquer sur ça léegi je reviens à ton candidat bi nga wax. fii la nekkoon place d'indépendance di di di di di di takk fulaar di sànni xeer pour Ablaye Wade dem nekk ginnaaw Macky Sall Ousmane Sonko man maa ko wax. ak ñeneen ñu bokk Pastef. seen i wax moom mais non mais y' a pas bien tey boo demee tey ñu bëri ñu ma àndal man mën naa wax ne man man Pape Sarr patriote la bu ñu nee patriote dans le sens d'aimer son pays je suis un patriote xaaral pare. donc boo qui sont à l'école primaire le savent. ben très bien donc arrêtez de nous embarrer euh, euh, embaratiner avec patriote. on vous embarratine avec bi mu toogee léegi da nga dégg ma Ousmane Sonko. si si non arrêtez non. on parle du projet de souveraineté vous avez une obsession. tu en as parlé quinze fois Ousmane ak Diop man Ousmane sama bureau même pas parlé sama bureau tu veux que je parle j'étais conseil technique de Amadou Ba ah, sama bureau doon toog ak bureau Ange Manka bu benn collègue am. sama sama sama je vous je vous dis rek dama lay wax dama lay wax. ko wax de. Sonko aussi mi ngi ci vous avez affaire à une équipe sur le terrain. qui aujourd'hui vous fait peur. et qui fait prendre la la la peau de l'escampette. donc arrêtez de parler de Ousmane Sonko. oui mais euh, alors euh, si tu parles de Ousmane Sonko. ça va pas être très bien vous empêche de dormir. Pape ah, je dors mes huit heures de sommeil tranquille. je suis pas stressé. et on est au pouvoir. le premier ministre travaille. on est au pouvoir. voilà on est là vous servez les Sénégalais vous êtes obsédé par le pouvoir. da nga ne da nga ne da nga ne oui mais les gars on c'est que c'est que. Euh, non booy débat booy débat quand je reprends et que je parle non monsieur n'a pas de place ne me coupez pas. et quand c'est un peu chaud vous avez parlé vous avez parlé vous avez parlé pendant toute la période je vous ai pas coupé la parole. non mais vous m'avez coupé la parole non non non je vous ai pas coupé la parole. vous me laissez terminer. oui mais s'il vous plaît oui mais un peu d'élégance elle est un peu d'élégance et de respect par rapport à la bouche l'élégance on est dans un débat donc et élégance fii du concours de ministre je suis désolé Pape Sarr Pape Sarr si vous voulez chercher des ministres nga dem seeti ko feneen fii amul ministre fii amul ministre fii concours may xanaa may mën tamit may mën da ngay noppi tuuti bàyyi ñu laalee nag yow tamit fii fii amul ay ministre nee naa la sànq donc arrêtez de me parler d'élégance on est là pour débattre j'ai débattu avec mon mon grand maman accepte qu'on vous lance ça avec Pierre mais là moi je vous yow yow kii nga xuloo man xuloo nga de man man xuloo ma de xam nga c'est toi qui étais excité tu as pris la mouche quand on a parlé de ton candidat moi j'ai dit les choses telles quelles c'est les choses qui défend mal. C'est pas le débat. Non, mais je me défends sur lui. Oui, mais calmez-vous, calmez-vous. S'il vous plaît. on passe à. On parle de Amadou Ba et de l'accusation de corruption. Je pense que c'est ça l'actualité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si ces faits étaient avérés, xaar ah, euh, ñu koy euh, dàq comme ça moom mooy demal boppam. un deux président bu amoon ay preuves yu ko leer kon premier ministre du fa fanaan donc pour loolu pour mu leer donc je ne vois pas pour quelle raison. Pour quelle raison Trop. Parce que toi, tu veux prendre le pouvoir, non, le Premier ministre, tu dois démissionner, tu dois partir pour nous amener une crise institutionnelle. Le pouvoir est bien tenu par un président de la République qui est élu, dont le mandat arrive à échéance le avril. Et il y a une nouvelle donne avec une commission d'enquête parlementaire, il y a une loi constitutionnelle qui a été votée, on la respecte et on avance. Waa fi jeex léegi lu si xew si diggante bi suba bu ñu am nañu ay on verra. mais pour le moment